sama gaay sama gaay sama gaay sama gaay naa leen état psychologique dafa am solo ci mbër soq nee naa la ba tàyyi yow waa pikin yi ngay bëreel nga war a soq bàyyil di bëreer waa Pikine soq xamal ni mbër nga soq Maama Lamine boo ko xoolee bo xoolaat Maama Lamine nga xam ne Maama Lamine entraîné wul mais Maama Lamine waxoon naa leen moom ci état psychologique bu ñëwee carrément billahi wallahi wa taalahi bu xoolee liñ tëj rakk ji li daal li daal yaayam ci lim nekk soq waru koo mën a daan bi ma koy wax fii bu dee maama dama dégg na wa wax maama boo ma déggee toogal ci plateau ne eh, coach dégg naa la fii loolooy wax gaay <laughs> soq da ko soq soq soq bàyyil bëreel waa Pikine soq bàyyil bëreel waa Pikine soq bàyyil bëreel waa pikin wax naa la ko bëreelal sa bopp waaye lu tax soq munu ah Mama Lamine gàcce ngaa laa ma waay waaw booy bi dafa jar a jàppale waay non booy bi dafa war a jàpp waay waay waay maama gàcce ma waay dund lu métti nekk ci lu métti entraînement jot nga jeex takk ñeer ñëw soq ñoo indi poids bu jéggi dayoo maama Lamine ne ko xoolal mbër ci li ma nekk moo gën a metti ci li may dund moo gën a metti munoo maa daan munoo maa daan waaye gàcce waay lii victoire de maama Lamine la victoire de maama la wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax victoire de maama la waaye macha waay macha allah waay macha allah waay maama Lamine waay yàlla la cat seexlu bu la pont jam bu la laal lay seet araam na la bu jam bu la laal la bu la pont jam la paaka laal lay seet araam na la maama sérieusement non maama eh sama gars maama dafa të xoola maama daa tenir loo xam ne nii tafaatin gis naa la nga nekk ci bitti di për përi di wane da ngaa pare fexeel ba boo duggee ci géew bi bu sa bët yi gëmm nandoon yow mi newoon ci bitti di cërëx-cërëxi tafaatin fecc na ci Pape Diouf dugg na bàkku tafaatin wër-wërloo na tafaatin mi nga wane boppam tafaatin mi ngi naan na temps bi gaaw ñëw leen ñëw leen ñëw leen fexeel ba buñ duggee ci géew bi bu fi sax soq yow moom déménagé soq yow wër na yàlla waa Pikine dañoo waroon a fàq yet duma laa ba nga ba nga nekk nit ñu déménager loola man nag wax dëgg yàlla soq moom daa waroon a déménager soq moom daa war a déménager sérieusement soq waratuta dikk dëkk Pikine nii Pikine ginnaaw raay nii Pikine xaw ma fan ak fan soq déménager nga dem dëkk Koupentoum Koupentoum ca Tambacounda na nga yóbbu ca Tambacounda nga dëkk fa ginnaaw yow da ngay entraîné ba ne ñàbb état de forme bi nga indi mënoo daal maama la bi <laughs> non maama eh, yéen waa Pikine mise leen ci Maama Lamine yéen nit soq yi jàppale soq ci làmb ji mise ci Maama Lamine mii imagine l'état d'esprit bi Maama Lamine yor Maama Lamine li naqari lim dund lu metti lim dund Maama Lamine ñëw ci làmb ji sérénité soq jàpp ko Maama Lamine di ko bàyyi mu jàpp Maama Lamine di wàcce loxo xoola naan ko booy bu dee bëree dama koo mën ndogal moo ma dal rek mais bëree sa man ne ba pare bu taxaw ne la deru lansaar baa ngi fi jël loxo bi tàpp ci xol te ne ko der waay waay waay waay waay waay waay nii la gone da ngay gone da ngay bégal sa gox waaw gone da ngay bégal sa gox kon dama leen di wax yéen tarkindaa yeeg turkindaa yi yéen ñooñun yëpp gën leen a booloo doon benn xam ne yéen ay jàmbaar ngeen ay ndaanaan ngeen ku leen jàppale wallahi wala azim ngeen dem dama koy waxaat yéen booy tarkindaa yi yéen seen jëmi bopp ku leen jàppale ngeen dem barki yàlla ndax bu dee jom am ngeen ko bu dee fulla am ngeen ko bu dee fayda am ngeen ko dëkk bi nag ku nekk ngi jooy souffrance souffrance noonu liñ dund mais yéen dafa mel ni yéen seen dund souffrance boobu noonu da ngeen xam fi ngeen ko mën a yóbbu looloo tax yéen da ngeen a neex a faral neex a àndal yéen waa tarkindaa yi macha allah yàlla ngeen continuer noonu eh maama waaw Tapha Tine simeeku na Tapha Tine simeeku na waaye waxoon naa leen tamit tafatin neewoon naa ko ba taay entraînement wu bodybuilding bokkut ak entraînement wu li nga xam ne ni tey moom mooy lutte gréco-romaine sambo wala simple Bakary nag bu ma a wax ni ñi ne non dafa bëri wax non booy bi day critiquer critiquer wu ma de su may wax xam-xam laay wax xam-xam laa fi teg Balla gay ñëw na indi caas ga waaye comme li ma leen waxaat nee naa leen Balla gay test la nekk test de préparation la Balla nekk Balla ca test la toll Tapha Tine sotti ca bopp ba mu am ay ñax yu vert yu tuuru kenn du Moustapha Tine Abdou Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Masata Ndiaye Ndiaye Ndiaye ma ngi ca plateau ba ak Père Pala ak ki nga xam ne ni moom mooy Lamine a ah, ma ne làmb nag dund na làmb taxaw na journaliste yaa nga wër Moustapha Tine Moustapha Tine ma ngay def ay débat débam ah ca dëgg-dëgg nag lamb bu Moussa toll fii sama xel dem ci ki nga xam ne nii a ah, moom mooy kan ñu ne Hadj Mansour Mbaye Hadj Mansour Mbaye mu ne ah ci dëgg-dëgg Aziz Ndiaye ah doomi Alla Ndiaye ah te dëgg-dëgg nag xam nga ne foo mu nuru baay waaw Sénégal boo xoolee Koupentoum Bakel Matam Saint-Louis Dakar Mbour boo demee nag Thiès kaay ñaari gaar nga xam nga ne ca dëgg-dëgg nag ñoo wóor ñii ñoo wóor ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw bala ngay simeeku na bala ngay wis suufuk joor bala ngay wis suufuk joor balaa ngay wis si joor gonek dubal lees gi boo ko xoolee ñu naan ko Simba wala Fawzeyni ah ci dëgg-dëgg <laughs> bala pare na entraîné na yor na maas boo xam ne ni war naa mën a déplacer Moustapha Tine ah <laughs> waaye li may jaaxal mooy mu doon làmb joo xam ne làmb ju diig waaw ndax dafa indi na poids boo xam ne nii est-ce que dina nangoo déplacer ay tànkam ah ci dëgg-dëgg nag sama gars yi ñëw leen ñu dem ca làmb ja ñëw leen ñu dem ca làmb ja ah ca dëgg-dëgg-dëgg ah doomi Balla ah doomi dubal lees ba ah Balla Gaye ah fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko aljanna mu ne ca dëgg-dëgg waaw balaa ngay génn làmmiñ balaa ngay génn làmmiñ ah Moustapha Tine Moustapha Tine ci wàllum xeetu entraînement ban comprendre ruma Moustapha Tine ana mu Moustapha Tine ana triceps mu Tine dafa mel ni poids ba nga indi woon contre Boy Niang nga fi indiwaat ah ca dëgg-dëgg nag làmb yombul borom gar tombé ah ca dëgg-dëgg. ma ne Lubang ñu ngi lay ziar ha yaa ngi may total waxal waay ca dëgg-dëgg nag boo xoolee per Pala kontaan na ah Moustapha Gueye bu faas bég na ña ngi ca plateau ba waaw ña ngi ca biir géew ba lu xew ca biir géew ba géew baa ngay yëngu te ah Balla tafaatin ah ca dëgg-dëgg arbitre ba ñëw na ña ngay waxtaan ca dëgg-dëgg nag lii dafa neex lii nag dafa neex lii nag dafa neex coach su rien à dire sur maas ba xanaa maas ba ndax maas ba dana ko bëree loowu foofu la ñuy wax moo tax ma leen wax ne leen entraînement wu bodybuilding ak entraînement wu gréco-romaine da ngaa soxla lu ñuy wax flexibilité explosivité rapidité ah yenn type d' yi da lay coincé waaw waaw ku ñuy génne kii kan la ku ne ci géew bi waaw policiers yi moom lan moo tax ñuy utiliser usage de la force excessive policier yi war nañoo delluwaat jàngi policiers yi lan moo tax ñuy utiliser usage de la force excessive du yoon policiers yi di utiliser usage de la force excessive dañuy wax ne quiconque est autorisé par la loi d'utiliser usage de la force il faut que ça soit raisonnable mu dépendre la personne bi nga xam ne ni dafa nekk ci sa wet bu dee nit ki dafa armé wu ok tu peux utiliser usage de la force mais foofu mu raisonnable mais pas ñëw koo xam ne ne yorul dara mi ngi ci biir géew nga fekk ko fa sànjaa ko fa maltraité ko il est au droit de l'homme liberté de la personne fu mu nekk fa lañ ko denc lii laay waxate xëy rek jëli policiers yu jàngut ñu kenn jongulu leen ñu ñëw di dal ci kaw suñ booy yi lu leen neex def sama gars yi am leen jàmm ñu ngi leen jaar jox seen wàcc waay ñu delluwaat ca combat ba ak ay dëgg